ami site internet euh, net bi tv li a fos ci bopp xabaar yi nag dañ koy doo rek alerte bi nga xamante ne kii di maître Ciré Clédor daal dina koy def moom nag la daal di xam ne rek na waxal ne rek moom la Ousmane Sonko nekkee moom nag la mu en tant que avocat bi koy layal waaye bokk ci membre collectif bi di défense de leader de l'opposition waaye dem ak démocratie la mu daal di xam ne rek moo di bu yàgg rek waxoon na Macky Sall ak nguuram que ne kii di Ousmane Sonko wér gu mayul ko benn yoon nag mu nekk nag la mu daal di xam ne rek moo di kii di Ousmane Sonko dafa mooy déficit cardiaque jamono ji li nga xamante ne moom mooy côté euh, nday côté càmmooñam daal mënatu ci lenn ndax lépp daal di paralysé met bu nu mel nag kii di maître Clédor Ciré ko di xam ne rek nit ki démb fa jugee ko yemoo ko fanweeri fan ci weeru août bi ñu dum la moom nag la mu daal di xam ne rek mooy kii di wér-gu-yaramu Ousmane Sonko bu ñu moytulee rek dina gën a grave ndax lépp loo xamante ne rek organe la nag ma ngay sàkku rek ci autorité politique yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo administration pénitentiaire ñu daal di informer ki nga xamante ne moom mooy doyen des juges d'instruction mi nga xamante rek moom moo délivré la woon boobu mandat de dépôt um nag la mu daal di xam ne rek moo di ab détournement procédure bu ñu moytulee rek dina am ci côté procureur de la république ndax arrestation bi nga xamante ne rek def nañ ko Ousmane Sonko bu ñu tënkoo ci boobu leen mbir moo di sàccum portable nga xamante ne amul benn valeur amul lenn loo xamante ne rek nit mën na cee def wante nag ab provocation bo ab boo xamante ne rek ci ab policière la daal di jógee ci lañ basé wu rek ba yóbbu Ousmane Sonko fi nga xamante ne moom mooy ca ndungu siin moom nag la mu daal di xamle waa rek moo di ne doyen des juges nag jot na rek mu daal di utiliser pouvoir am ba kii di Ousmane Sonko nag mën a ñibbiwaat fi nga xamante ne moom mooy ca këram ndax wér gu ko benn yoon la ko muy toog foofu ndax kii di Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci déclaration yi nga xamante ne moom la avocat bi daal di xamle rek mu nga ca réanimation ndax docteur yi nga xamante ne ñoom ñoo koy traité jamono ji nag ñoo confirmé mbir mu nu mel ne kii di Ousmane Sonko jamono ji wér gi yaram moom sooke na lool moom nag la mu daal di xam ne rek moo di bu ñu ñëwee rek di gëmal nit ñi philosophe ak moral boo xamante ne rek moral mu justice boo xamante ne rek dañ koy daal di cité moom nag la mu daal di xam ne rek mooy tëx gi nga xamante ne nag membre gouvernement bi ñu ngi koy def jamono ji ginnaaw bu ñu tëjee kii di Sonko ndéem def na alerte nag di xam ne ne kii di wér gi yaram ma mayul ko benn yoon nag mu ñëw foofu jamono ji nag ma ngay sàkku rek ñu daal di saisir ki nga xamante ne ñoom ñooy yor droit international ngir mu libéré kii di Ousmane Sonko moom nag la mu daal di xam ne ba tey moom Maître Clédor Ciré Ly moo di ne ma ngay lancé ab occasion nag jamono ji jàllale ko nag ci président de la république ak képp koo xamante ne rek yaa ngi liggéey ci biir société civile moo xam militaire ministre de la justice nag daal dina koy posté ginnaaw bu ñu gisee ni dafa incompétent ndax la muy firndeel ci boobulee la mu firndeel ak li nga xamante ne moom moo am nag c'est diamétralement opposé ba tey rek moom maître Clédor Ciré Ly ma ngay dànkaafu bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñooy saytu ak ak yelleef doomu aadama ñu libéré Ousmane Sonko ci nu mu gën a gaawee wante nag nañ ko libéré te bañ ko topp ci dara moom maître Clédor Ciré Ly moo daal di xam leen mbir mu nu mel nee na nag ci turu devoir bi nga xamante ne moom lay exercer ma ngay sàkku rek justice ñu daal di koy rend bu baax kii di Ousmane Sonko ba noppi rek bàyyi ko mu ñibbi këram ndax lii de wér gi yaramam mayul ko benn yoon mu toog foofa jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneeni info